ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru safar di weeru sëriñ Tuubaa radiallahu taala an ci weer yi nga xam ne ci la santaane woon fukki fan ak juróom-ñett ñu ko ci santale boromam sant goo xam ne xéewal yu rëy yàlla wàcce ci moom bari te yaatu àgg ci noo ne xeeb na ci santuk boppam mu woo ñoñam woo ay soppeem woo bokk jullit ñu santle ko ci yàlla ndax xéewal yooyu ci bis boobu la sababoon ndax natt bi jur xéewal gi ci bis boobu la tàmbali woon kon su jubee baax na di fàttali nit ñi lu mel noonu fàttali ko nag anam boo xam ne waxtaane sëriñ mag bi radiyallahu anhu moomu di santulu mooy kan mooy kan ci ay jikkoom ndax jikko mooy nit jikko ci lañuy ñuy gënee jikko ci lañuy ñuy kon fàttali lenn ci ay jikkoom dana am solo lool ci waxtu wi ñuy màggal ndigalam loolu radiallahu taala an mu nekk mu war a nekk ab soññi war a nekk ay bind war a nekk ay waar ci képp koo xam ne lu baax ñor na la Sëriñ Tuubaa moom nga xam ne radiallahu yàlla da koo bindoon taw féexale ko ak mat mat gi nga xam ne ñu néew ci jaam ñoo koy def amoon na ko waaye yàlla bind ko it mu nekk ku yàlla nekk rabbaani day ñëw àdduna rek indiwaale koo xam ne yàlla rek ko ñor ko jagle bu rëy la sëriñ Mahmoud Bachir doomam radiyallahu anhu ci Minanul Baaqi wax na ne sëriñ bi day min awwali nachatihi kaana majbulan ala mahabbati mujidi ci njëlbéenam rek daa sosu bëgg ci bëgg yàlla dëgmal yàlla wóolu yàlla doyloo yàlla ak dox jëm ci yàlla nga xam ne teel di bàyyi xel waxtaani gaa ñu baax ñi ba jikkoy bëgg yàlla ak nekk ab rabbaani yi nekk nitu yàlla teel a feeñ ci moom wax nañ ne daan na taxaw guddi sax te booba dugg guddaara dema guddaara àggagut yi fu ñu koy fu ñu fu ñu koy joxe ndigalul jaamu yàlla yi ndax dégg na way juróom daan wax naan bokk na ci baaxub gaañu baax ñi xiyaamul layli bu guddi jotee mu jóg di taxaw loolu kon day wane ne ni mu mel nii négut ba doon ki mu doon doon a mel noonu da ko ñëwaale àdduna ñëwaale bu baax euh, teel a moytu ay safaan yàlla moo ñaale ko mu teel a moytu ay safaan jikko yi tedd yi ñu tuddi makaarim làq yàlla teel ko def ci moom te yooye bokk na ca li ñuy wax taqwa melokaanu Sëñ Tuubaa woon taqwa nag mooy bàyyi ay tere ak def ndigal nit ki am taqwa mooy ki nga xam ne li yàlla tere lépp ba na ko waaye lu yàlla diggal lépp lam ca man moom def na ko loolu bokk na ci li nga xam ne sëñ bi ràññikoo na ko ci njëlbéenam te it nag ñetti ñetti degré la am yoo xam ne yëpp lu sëñ bi doon bàyyi xel taqwa bi nga xam ne mooy tax nit euh, mucc ci mbugal mooy bañ a bokkale yàlla ak dara boobu moo ci jiitu yaa xam ne wax wa alzamahum kalimata taqwa ñaareel taqwa mooy moytu muy ijtinaab bàyyi bàyyi def lu wër bàkkaar ci ay wax ak i jëf loolu ñu tudd taqwa shara ci sharia mooy taqwa moom la xam ne xoola war na ahlul qura amuna taqwa la fataxna alayhim barakaati mina sama wala bu nit ñi bàyyi woon mooy yàlla ci kaw suuf si xéwal doot fi ba tasaaroo doy sëkk ñetteelu taqwa nag mooy bi féete kaw nga xam ne moom nit ki day àgg ci yàlla rek lay teg ci kanamam mooy li yàlla wax ne wattaqullaha xaqa tuqaati sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ñetti xeeti daraje taqwa yëpp teel na ko matal li koy firndeel bokk na ci bare bari maanaam mësta ñàkk tegu ci yoon liñ naan amut ndaw gu mu jaar gu ñuy wax amu ko mooy koo xam ne ba mu feeñee nit ñi di ko teg bët ba ni mu làqoo amu fi lu ñu wax naan fii ay jamono sàngam mu mel melokaan woo xam ne du baax wala gën ñam ñam jamono teel loole nag li ñëwaale jamono di ko suuxat di ko yàgg yaatal kon li ñuy wax istiqaama moom la ñëwaale àdduna te tegu ci yoon yu xoj te loolu moo ñu jàngaloon ci ginnaaw bi jàng ay njàngale wax na ne jaam bi bul ëpp bul yées waaye na nga nekk mustaqim te mooy sax ci sunna sax ci yoon wi nga xam ne moom lañ fi indi bàyyi ko fi li ñu war cee jaar moo tax ñu ko doon taggee loolu lañ ko taggee kon istiqaama boo xam ne ëppul yeesut loolu melokaanu sëriñ bi dafa tegu ci yoon ëppul yeesut ndax ëpp yees benn baaxu ci benn baaxu ci moo tax am koon tagg na hidayatuhu qasdun ida dayaqa alladi tasawufa jahlan aw tawassaa dul yi bu amee ay suufiyank yoo xam ne dañuy ëppal ba xatal mbiri ba mu jéggi dayoo wala ay fuqaa yoo xam ne dañuy sàggan woyofal mbir yi ba lu bari lu ñuy tere sax yu ñu bëgg koo daganal sëriñ moom nekkul foofu ci digg ci digg bi la nekk sàmmoon lool nag sàmm sàmm sàmm mooy koo xam ne lu ñuy luñ terewu sax danga koy bàyyi ngir bañ àgg ci lu ñuy tere sëriñ bi loolu ci njëlbeen la ko teel tàmbali tere sàmm lool ba ci njëlbeenam ma ngi dañoo wax naan Mamor and Sali day am na doom joo xam ne ci xam-xam ci diine ci sàmm mosee su ko gis ci ñoom jamonoom ñu naan ah, kii de ndaw la waaye daa mel ne waliyu la de loolu mag ñi dañ ko daan ci ndaw booba sëñ ci raw la mel ne melokaan yooyu da jamono radiyallahu taala anhu wax nañ ne bant bu ñuy sekkaritoo mosu koo jële ci perum jàmbur léegi nit am soxla yett xalimu wala nangam dem fekk ab sàkkar rek nga daa tee dagg dem yett nga jàpp defoo dara alal jàmbur goo jël ci lu coow ci lu coowareem la loolu du waral sëñ bi ne waxu xalima waaye bantub sécurité mosu koo jël ci euh, ci ci sàkketu jàmbur ndax rek kon melokaan taqwa boobu fees na lool ci moom euh, feeñ lool ci ay dundam te loolu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana moo ko nettali ci an-Nubzatul Mubaraka lépp woo xam ne aw ñam bu mas a indi ci eh, ci si fa mu nekk bu cay sikk sàkka wala wóoluwul suñu jógee dana fexe ba du ci jëfandiku loolu ci ndaw jamono joo xam ne it ñam yëmbutoon mësta jëfandiku ba suuy tey mos jóg loolu na ko yàlla moo ñëwale kon àdduna lii firndeel sàmm googu sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ci àdduna bu mubaaraka ne mas naa ànd ak moom sëriñ bi ak sëñ Massamba Diop Sam am wóllëre wuñ seeti woon mu defaral leen aw ñam ab laax la daf ca Euh, dax ñu tuddee dax waaye nag waxu leen dara da koo teg noonu rek teg laax bi waaye ñoom ba ñu xewlu laalu dax ba ndax nee na juum ci bàyyi lu lew moo ma gënal juum ci jël loo xam ne lënt la maanaam jëfandikoo ko te fekk boroom joxuma ko mu ne ma man nga koo jël mu bàyyi ko fa moo tax moom moo ma gënal nga xam ne dañoo xewlu bàyyi ko fa bi bi bi si ki leen doon gàddal ñëwee ci la xam ne jëfandikoo wuñ ko ndax waxu leen woon dara néew leen mën ngeen koo jëfandikoo da ko teg rek sëriñ bi foofu la ak sàmmam tolloo nga xam ne teel a bëgg lu baax ak teel caa jëm moom foo foo takk wees na ko loolu jikko la joo xam ne sëriñ Tuubaa ràññi ko woon na ko radiyallaahu taala anhu waaye teel a euh, dëddu àdduna ak doylu loolu sëriñ Mbàkke Buso radiyallahu anhu bokk na ci li mu li wax ne moom ni ko yàlla bindee woon mu tuuti sew bu jëfandiku tuuti la jëfandiku buy naan tuuti tey naan nee na li ko waral jamono mu am nekk ak sëriñ bi xëy na jamono yi sëriñ bi nekkee Mbàkke yi taalif Masaalikul Jinaan nga xam ne moom ñoo doon nekk bu taxaw moom lool ca la tàmmee jëfandiku néew boobu day mujj bu fa jógee bu jëfandikoo tee lu lu nar a ëpp sax da koy da koy sonal ba doxa ci nekk nit ku tuuti te fekk bindam na ko yàlla bind mel na ne mënoon naa mënoon naa mënoon naa bañ a noonu waaye ab yar buñ ko yar ci néewal li ñuy jëfandikoo moo ko melal noonu nee na liñ daan naan ci bis bi maanaa bari ci loxo du ko ëpp as comp as comp ci baraay it moom leen xewloo te loolu am nañ ci ab diir boo xam ne noonu loon def ci la sëñ Mbàkke wax ginnaaw loolu saa bu weesoo te lu toll noonu rek mu indi lu ko jafe-jafe waaye bokk na ci melokaani sëriñ bi it ak dara ji ku yàlla jox ak cir bi mu am te mu xam ko waaye teewut ku wàcce woon boppam la ku wàcce woon boppam la ku suufeeloon boppam la ci kanam ay bokkam ak kanam ay kilifaam daan wàcce nit ñëpp seen wàccuwaay jote gu ko booleeg ak nit lu mu seq ak nit mooy mu di ko sàmm ay waajuram mu jàppale leen waajur ay rakkam mu jàppale leen ay rakk ay magam mu jàppale leen ay mag doon jëflante ñëpp kenn ku ne daal bu dajee jox la sa cër buy bind bu wax ak yow danga xam ne mi ngi lay bàyyi xel mu ngi lay jox cër waaye it nag bokk na ci ay melokaanam ku amoon chaxsiya li ñuy wax personnalité jëmm joo xam ne koo gisee ko wekk sax boo jàkkaarloo moom xam ne kilifaa gi nii am xayba am waqaar bu jéggi dayoo sëriñ Bachiru radiyallahu anhu nettali na ci meneen ne am na ci buuri àdduna yi koo xam ne mas naa ñëwal sëriñ bi ba mu dikkee Mamour Ansari radiyallahu anhu di way juru suñu la doon seet si toogoon ak moom ñu waxtaan ba mu noppi ba mu génnee romb sëriñ bi mu toog ci ab sajaada di jàpp sàmm euh, kii boobee sàmbalaw be la jaar fa ne day nuyu sëriñ Tuubaa nga xam ci ci jénne ci way juram bi mu dikkee sëriñ bi daal di wàcc der bi mu laal la nekkoon toogoon di jàpp laalal ko ko ngir bëgg mu toog ki teral ko ndax teraanga la kilifa la waaye nungu caa toog nungu caa toog xam ne kon mu ngi doon bàyyi xel ci moom loo xam ne sax cër bi way juróom am ak li doon lépp teewul ba mu dikkee daa toogoon ak moom bu dikkee fii sëriñ bi jox ko am der nungu caa toog kon loolu wane ne xëy ba kooku yàlla moo ñaareel ba Euh, kilifa yi sax dañ ko joxoon ab cër waaye nag bokk na ci ay melokaanam it sëriñ bi ko amoon dogu la ku jàmbaare la woon ku ñeme la woon ndax bokk na ci rek xupp yeeg ixraat yi nga xam ne noonu yi fu ne def nañ ko fa taxul mu mas a soppi taxul mu xëy wax lu bokkul li mu daan wax wala mu def lu bokkul li mu daan def ba ci bi mu nekk ci noon ya noonu la wéyal moom daal yàlla lay bàyyi xel wala yaxa wala yaxaafu fillaahi lawmata laa'im dëgg yi lay àndal fu dëgg jëm mu jëm foofu fu dëgg woon ginnaaw moon ko ginnaaw ànd ak sidqu iraada goo xam ne ak jublu ci yàlla ba ñu jublu feneen moo ko may lim am ak yitte ju kawe yitte kawe kawe joo xam ne tiim na yi yëpp ndax li ko tax a jóg moom boo xoolee ay jaar jaaram fu lu baax nekk mu di ko wër mu ngi doon dox waaye lu mu agsi rek xeeb loola tàmbalee jër ci wérde yi jële ko ci way juróom jële ko ci Cheikh Sidé jële ko ci ñu bari ñoo xam ne mu ngi doon dox rek di wut ak man ba bi bi ko sunu borom wane léegi Cheikh Abdou Khadir Jilani waaye mu wéyee dox rek ba àgg ci dañ dëpp gi nag mu yonent yàlla Muhammad alayhi mu jaayanteeg moom wax ne tey mooy sama kilifa kon loolu yittu ju kaw moo koy may am koy yitte la ci jamono joo xam ne nit ñi am na ci mbaax buñ fu ma seen àgg rek taxaw daal jàpp ne doy na moom nag amut ci mbaax yemukaay moo tax mu dem ba àgg ci ñëw waxtaan la bokk na ci ay melokaanam it ku mën a muñ la woon jubal liñ ko teg ci ay nattu ay noonam teg ko ko mu daan jànkoonte moom fu ne mësta wonk mësta saali ak lépp day sant yàlla eh, boroom xam-xam yi am xam mën a seetantal dañuy seetlu ne mbindam mbind day day day day dañ ciy xamee tolluwaayu nit bu dee ci jafe-jafe la toll day feeñ ci mbind mi bu tolloo ci jamonoy xéewal bi day feeñ waaye mbindum sëriñ bi moom la mu doon bind ca ca ca ca ca géej ga nga ci digg nattu ci digg noonam ñu koy teg tiis yu ci rafetaay ak ci mataay doo ko xàmmee ak li bind bi nekkee Tuubaa ne ci biir njabootam muy wane ne kon nattu bi li metti metti moom ci kaw waaye moom ci biiram waxtu ne mi ngi sant yàlla kon ku mënoon a muñ la koo xam ne li ñuy wax ar rida la jël maanaam ndax mën a muñ sax baax na waaye nag li ko gën mooy nangu gërëm dogal bi xam ne yàlla lim dogal daa gën ci yow ñaxtu du jàmbat ku dul ko bind te jàmbat jëme ci yàlla jaamu yàlla la moo tax ma ko def ñi koy yëjjëg nga xam ne àgg na ci noonu yi di ko teg yoo xam ne moom ne na ku ko mën a dékku di ko booleeg ñu gën a yewoo di ko ci ay ci seeni seeni seeni njaboot seeni bokk seeni seeni nit waaye ñu koy won di ko teg yoo xam ne waaye teewul mu mujj rek nee na ala inna ni uthni ala mun a wala ashtaki lil xalqi min faqdi anam di ko jàmbat ñu néef ñàkk ay xéwal ñàkk dara sax ma jàmbat ko ñu néef ndax nit doomu aadama mën dafa dara yàlla da rek mën a faj kon ku mënoon a muñ la bokk na ci ay jikko moom sëriñ bi ku tabale woon li ko yàlla sedd ci ay daraja ci ay ay ay ay ay ay lépp da ko bokk ak jaam yàlla yi dañ koo séddale doy naa firnde ak tabam asakay xaalis dañuy wax ne war warul sëriñ bi te li ko doon dikkal par bis mat nisaab par bis ngay wax li nga xam ne ku ko am ci alal asaka war la mën nañ jàppale li doon ñëwal sëñ par bis day man nisaab ci asaka waru ko ndax lan asaka ngir mu war ni da ngay am nisaab denc ko at moom na ko xulaat waaye lu ñëw rek delloo ci jaamu yàlla Cheikh Sidi waxoon na ne jàkkaam ji mbooloo fay daje ñii dañu fi ñëw di jaamu si yàlla waaye ñii dañu di moslu si ñu ko génn it bëgg kon loolu ak tab la goo xam ne jéggi woon a dee bu doon mbubb yenn naadu gànnaar waxoon na ko ne sëriñ bi tab bu doon mbubb ma ne moo ko sol sol goo xam ne ko moom kenn abalug loolu di jikko ju kawe nag ndax jikko suñu boroma jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu roy ko ci lool amaloon njëriñ mboolem mbindeef yàlla yi ay ci ay noonam sax ñu ko gënoon teg ay ay nattu nga xam ne gënoon koo jaxaseeg noonu yi ginnaaw bi ñëw nañ ko fekk njareem sëñ bi sutura leen dimbali leen ña xam mbiree mu xamal ne ña ko ñu ko xam buñ ko xam ndax am na ñoo wax ne bu ñu yëgoon ni diw mii moo doon def li sëriñ bi moom duñ bàyyi mu jàll waaye day ñëw sëriñ bi suturaal ko teral ko bàyyi ko mu dem ci koo xam ne mën nañu wax ne la ëpp ci ya ko doon dal ña ko doon soogee ci la bokk kon kooku ak tabam foo ko takk wees na tax benn naar doon wax ne sëriñ bi day euh, suuf soo xam ne sëriñ baa nga fa bu tawutib dina wàññi dara xéewal gi wàcc sëriñ bi dana mën a wóotu taw ci ñoom ah, wane na ne ku ku euh, muy koo xam ne it tab geek mbaax geek nga ne lii ñuy wax yépp amutoon ñu mu ko jagleen nit dana baax ba njëkk ko sawir waaye da ko yemale fenn moom ak njabootam ay mbokkam ay taalibeem ak fu julli nekk ba ci ay noonam baax gi dañ ko da ko doon jëflante loolu mat kon sëriñ bi ko yàlla indaale adduna jikko yu rafet yi moo tax mu nit ñi ay mbokkam nangul ko jàmbur yi nangul ko ay noonam sax mujj seere ne kii euh, ci mbaax amu fi amul kenn ci ña ko doon tuumaal ñoo mujj wax loolu jikko ju rafet jooju nag moo tax mu sang ndax jikko ci la ñu sange yàlla ba muy tagg yonent yàlla moom alayhi salaam juddu ba rafet na loolu tëgg ko ci way nekk la ala na azim la ko wax moo tax sëriñ bi it ràññi ko lool ci jikko yi ba sang ay ay jamonoom nekk sangu jamonoom loolu it di lu ñu war a roy ci moom kon képp koo xam ne euh, euh, ci ci sëriñ bi nga bokk ak noo ci bokkee jàppal ne yii ñuy wax nii ci ay jikko yu rafet yi bul wax ne mënu ma cee mel ne sëriñ bi waaye sëriñ Saliou Mbacké daan na wax rek anhu boo mënta mel ne waaye roy ko dana tax nga mën a raw say morom roy ko dana tax nga mën a raw say morom kon loolu it di lu mat a bàyyi xel mbokk yi jikko yu sëriñ baa nga woon ku dellu ci mini sëñ Moussa Ka daanaka dañ la ko tënkal du dóor ndaw du merloo mag mënul gëntali dëkkam amul xaar ma yàlla nit du xas nit ci waa kanam loolu ci yow ba mu koy wax ba ne ko billaahi yaa mat li nga doon tagg mënut a fay di kaw loolu mu mat lim doon ci doon jaamu yàlla doon koy liggéey yonti bay doon koo xam ne day nekk sangu jamonoom wuuf njaboot gi wuuf jullit ñi di leen taxaw ci baax ba àgg fi ñu àgg lu baax lu fi baax lu nekk moo ko liggéey tasaare ko ci njaboot gi tasaare ko ci jullit ñi ñëpp di ci jariñu tey am na euh, ku fi ñëw xéewal yàlla wàcc jaare ko ci moom mi ngi àgg ci ñëpp ñu ko yëg ak ñu ko yëgut kon yàlla na ko yàlla fayal doole gu ngërëm waaye saaxal ñu ci am ngërëm ndax it loolu mooy tax ñu mën a jariñu dafa ñëwoon nekk roy waaye kon ngir ñu jariñu dañ koy roy yàlla na yàlla dimbali bañ mën a wéy ci di ko roy wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmani rahim. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم